mbokk yi dalal leen jàmm ci rajo Futur Média régime bu yees bi nga xamee ne kon moom moo fi nekk daanaka dañoo bañ euh, dalal gan yi nga xamee ne kon ñooy ganu xalif général de Mourides te ñu doon leen faral di leen dalal ci hôtel King Fat Palace muy nag loo xam ne métti na ay murit yu bari yoo xam ne jot nañ ci xibaar bi ñu mel euh, ba tax na jébbi nañu seen addiya jébbal ko euh, comité d'organisation bu màggal bu Touba ngir jël en charge ganu xalif général des Mourides Abdourahmane Diallo li moy goulet nguur gi bañ loger ganu xalif général des mourides yi nga xamné dañu joggé bitim rew ngir féké si màggalu Touba bi ci ab bataaxal bu présidence de la république directeur des moyens généraux dal koy signé le 31 juillet bi ñu génn nguur gu bees gi xam le ni dépenses dépense ak xéet gi ni mel motax ñu daal di bañ loger délégation étrangère bi Cheikh Omar Diagne di yok di xam le ni lépp li nga xamné hôtel la té nguur gi teg ci loxo jamono jii nii dañ ko nek di séentu xol ba xam nan lañ koy doxalé ginnaw bi ñu lacté jitu commission bu jëm ci walum dalal délégation étrangère yi ci comité d'organisation bu màggalu Touba bëggu ci yeey yabi muy ñaawlu sax li document Bobu dal di génn ci mbedd mi Serigne Cheikhouna Mbacké buggi ci yeey yàbbi waye buñu sukkandiko ci suñu ay xibaar bi ciow li joggé talibé murid bolo nek ben kenn ku nek dal di duggal loxam ci poosam ba ganu général des mourides yi joggé bitim réew wutal leen ay auto yu leen di yobbu Touba ak hôtel yi nga xamné fofu lañuy dal délégation yu joggé ci bitim réew nak lu ëpp ñent fukki nationalité yu joggé fépp ci continent bi ñoo ñëw ngir fekkee màggalu Tuuba bi ci fàttali saa su ne xalif général des Mourides bu amoon ay gan yu jógee bitim réew ngir fekkee si màggal gi nguur gi moo doon jël hôtel King Fahd Palace dalal leen fa ngir ñu mën a dallu ngir mën a dem ci xew-xew diini bii nga xam ne àdduna yépp dañ koy waxtaanee. Abdourahmane Diallo